Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, j'espère bien. Alors, n'oubliez pas, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important. Guys, des fois, nous avons une vidéo, exemple, 100 000, 100 000 vues. Mais on a 50 000 likes au moins. Madame, nous liker. Je comprends pas, s'il vous plaît. Dès nous liker, c'est très important, les likes pour nous. C'est la seule façon de nous dire merci, quoi, pour vidéo, de partager aussi, c'est très important. Alors, likez. Vous faites que des gens, ma miiraa sama bopp jënd ko su fekkee yaa may doog sétane seetaan wala nga war abonné go invité la sax nga abonné right now c'est simple ni rek la et merci Madiambal Diagne genn na ap livre 258 pages dal di koy duppé Ousmane Sonko Adji Sarr après l'histoire les confidences inédites de la victime manam ay mbir yo xamante kenn xam ko kenn mësu ko wax fenn ci digënté Adji Sarr Ousmane Sonko alors Madiambal a fait une vidéo pour expliquer li nekk ci biir livre bi il a bien fait parce que les personnes ciblées ñi nga xamante ni ñeen bëgg détourner sen seen amu ñu jottu yaq une minute de leur vie pour lire livre je suis bien fait livre bi affaire yu doy je pense que Iblis suis wàcc doon ko bind je te félicite tu fais très bien ton travail Je suis nag lu li le fait que ñu jàppee sénégalais sans cervelle nous ñu ay xar ay kaña tax nga temps 258 pages uniquement pour ñaawal xelu sénégalais pour dindi ci loo xamante Je suis xew ñuy dégg di gis lépp fi la ñu fekk yow nga ni da ngay ñëw pour ñaawal suñu xel quoi respecté woo ñu quoi nu dina xam diabolisation ci politique la bokk maanaam diaboliser doomu aadama ci politicien la fekk baax te à 85% ci loxo ak journaliste yi donc ce que tu fais on a compris donc ma jambal li ngay jàmb yaakaar ni sucre lay saf sénégalais après tu penses que dañ koy naan comme qui naan jus d'orange non ma jambal li ngay jàmb acide la xam nañ ko duñu ko naan di dé par contre yow bo moytuwul say loxo ci yàqu après la jambation ne te fatigue pas donc et dinaa la won aussi ay commentaires yoo xamante ni di nga xam ni sa diabolisation beeg sa livre bi ci sa kaw lay këpp te par contre dafay gën a yokk amuuru sénégalais yi ci Ousmane Sonko d' accord Madiambal Sophie Ndiaye nee na mais kii moom est ce que am na ay mbokk wala ay doom Sénégal mais kii xanaa dafa génn njabootu xanaa dafa génn si njabootu yonent yàlla Mohamed mais kii li muy meew ma rafetal ko kii li muy meew est ce du feebar wala boog dafa foog ni sénégalais ay xar lañ bokk dama japp ne ay xar nga ñu jappé yalla suñu borom ma ngi lay ñaan nga dimbali ñu raxasal ñu Sénégal ci xeetu nitu iblis yi amin ya rabbal alamin ya ko yàlla def. ma jambal jili wad na jili wad moy wax de. plus vous parlez du mal à Sonko plus sa popularité augmente plus notre amour pour lui augmente parce que Ousmane Sonko a éveillé les consciences j'espère que li ngeen xamul. motax ngeen di jiim lu nekk de gauche à droite. Euh, ma jambal Malcolm X nee mom il n'ose pas tu n'oses pas. d'accuser comme ça Serigne Bass Abdou Khadre gratuitement cey euh, système bi dafa yaatu ma dem ma jàmbal ma ma ma jàmbal un simple journaliste qui a des milliards yow xam nga ni sa immeuble bi nga am euh, Mamel bis bu Sonko toogee dinañ la ko nangu ndax ni nga ko amee jaarul yoon. yaa yey yàq deru Ousmane Sonko mu sell mi noos leen bu baax 4 mois rek moo ci des octobre novembre décembre janvier c'est fini fini à abanna a Agassi jeex d'accord non d' D'accord? Non, c'est bu baax léegi mu si Crazy officiel nee lire ce livre ngir yalla ne cherche pas à nous distraire dañu nekk ci focus bu metti D'accord? boko boo jim sax doo ko ah, Ma après ton livre de 258 pages nga doupé ko Ousmane Sonko ak Adji Sarr d'après que li nga ci yak Ousmane Sonko yëpp. Palamine Diouf je pense que tur bi noonu la je renouvelle ma confiance à Ousmane Sonko donc un commentaire bi lay revenir plus vous parlez du mal plus vous allez di faire. gën a bëgg nit donc continuez à di la promo de Ousmane Sonko merci beaucoup c'est bien ba tey Madiambal ginnaaw bi nga livre bi bind 258 pages pour diaboliser Ousmane Sonko Fatou Kamara nee mon frère ne te fatigue pas Ousmane Sonko est dans le cœur des Sénégalais merci je pense que loolu ngeen xamul wala soit xam ngeen ko da ko bëgg a ci xolu nit c'est impossible xool ci nit boo ko de ko fuqar ñi day dee te nit ñi bu ñu seetaan ngeen di rey donc ne vous fatiguez pas s'il vous plaît Madiambal Adama Diallo nee na ça avance la mafia politico-maraboutique journalistique j'aime les masques vont tomber incha allah Sonko président bi Sénégal incha allah rab bi 2024. voilà léegi nag foofu la politique bi nekk maintenant ci marabu yi ak journaliste yi ñoom daal ñoom ñooy def maanaam affaire yi quoi jaxase marabu yeeg dëkk bi journaliste yi nekk ci suuf di romandaat des trucs comme ça waa nekk leen ci. majambal dernier commentaire. Edouard Nango Nene, mais il est vraiment fort en contre-vérité, c'est Madjambal, Madjambal. Incroyable, quelle imagination. il est mort tout à je te félicite, quoi. tu fais très bien ton travail. tu es très fort en contre-vérité. quoi. Mouillon Madjambal. Guy, Madiambal Diagne bi mu dugalee vidéo bi dafa désactiver commentaire yi maanaam mayul kenn joxe <laughs> affaire ci commentaire yi parce que xam na li ko ci fekk nanditi la donc de ce fait dañuy dégloondoo man damay sélectionner partie nga xamante ne jàpp naa ne Iblis moo wàcc bind ko et vous allez man kii man kaawam daf ma dépassé donc ku ci nekk comme xaj nañu fee commentaire yi na gaa yi ñëw fii ku ci nekk joxe joxe xalaatam ak bu fekkee da nga am loo koy conseillé en tant que rak wala mag wala doom wala jarbaat nga dimbale ko ko conseil ko parce que xam naa ni soxla na ko mais s'il vous plaît bu kenn insulté am na ñoo xamante ni xam naa leen donc s'il vous plaît bu kenn insulté kilifa la. alors ñu seetaanandoo ko ñu dégloondoo ko ñu teewloondoo ko di ngeen vous allez être choqué. wale naa tamit ak beddi konteem gu muy def ci réew mi mu ni maire la Ziguinchor nga xam ne dafa nekk réew moom nii bërëb ba nga xam ne bari na fa ñañ ni bokkuñu ak moom diine waaye ku ne seetlu la maire wu Ziguinchor musta nangoo teg tànkam ci église ba bañ bañ ko bañ koy inauguré sax te bari na lu ma indi ci ay firnde ci livre bi ni que kat ñëwee nekk ay catholique wala ñu nekk ay catholique Sénégal gis nañu ay doxalin ak ay wax ak defiinu Ousmane Sonko yo xani ñu man war mëna tit ci seen ëlëk ci réew mom ni Ousmane Sonko moko yitté lolu loolu yooyu yëpp ay firnde la ya nga xamene indi na ko ci bir livre bi di wone ni ak tit guñ ci war tit tiit dama fàttali ci livre bi tamit waxtaan waxani amon na ko wala luma ma seqoon ak ay kilifa diine yu nekk Touba. lolu bañu élection 2019 bamu amé ba pare. Macky Sall euh, nek président de Falco a 58% des suffrages Katia Topone nek Idrissa Seck am 28% des suffrages Ousmane Sonko mo ci Topone am 15% des suffrages campagne beaucoup ku ne gis na ni résultats qui ont été len len ba dafa am kilifa gu nekk Touba damay tudd turam ndaxte sama xool xarit la sama wóllëre la muy Cheikh Moussa Abdou Khadr euh, moom ak ay kilifa yu bari tuuba euh, dañuy faral di waxtaan ak man di diisoo man di ma laaj sama xalaat ci mbir yu xew ci réew mi ak naka laa ko gisee ak nuñ ci war a taxawee. <laughs> Euh, bi élection yi jàllee daf ma woo ni ma bëggoon naa waxtaan <laughs> ci réew mi muy élection 2019. ma xëy dem seeti ñu doog waxtaan waxtaan bi ko daal ak lu man di xew li nga xamee ni mooy ñëw war nañ cee bàyyi xel mu ni ma lan ma ne ko Ousmane Sonko moo nekk troisième ci élection xaw ma élection yéen di ñëw dooleem dina yokk am dina wàññeeku waaye ku am looy tiit ci moom waa Touba ñoo war a gën a tiit ci moom <laughs> ndax kat pexe bu jubee Touba lay jëkk a nasaxal li xew Touba di façon diine bi Touba am bokkul ak li nga xam ne jublu nañ ko mooy ñi mu andal jublu nañ ko mooy salafiste yi ma ne ko loolu war nañ cee bàyyi xel mu ni ma li nga wax ni kat moom sëñ ma jàmbal lu ñu war a waxtaane la waaye lii kat jar naa du moom rek laa ci waxal wax naa ci yeneen kilifa ya nga xamee ni ci Touba la ñu nekk jege xalif bi waxtaan ak moom te euh, defe naa ni euh, sama diggante ñoom ku xam na ko euh, ma biral leen li may njort ak li may ragal loolu nag li ñuy wax naan l'histoire m'a donné raison ndaxte kat gis nañu coow yi bi mu amee luñ doon aaye Touba ci activité politique wala fitna am na fa te Ousmane Sonko ki nitam ñoo ko fa def fàttali naa ci téere bi nii Ousmane Sonko organisé na meeting Touba bëgg faa dem police baare ko mu wax ko safaram nañu foncé ci gendarmerie kooku defe naa ne bu ko mas a def yoon dal na ci sa kaw ñu ni déet Touba gis nañ fa luñ fa mës sa gis ñu dikk songu Touba ba ca barabu jumaa ja ñu def fa lu fa defa wut gis nañ fa ñu taal fa ay kër taal fa ay yëfi jàmbur ba xalif bi mu defee ba xalif bi sëñ Muntaxa ba mu gisee ni que lii kët ëpp na dayo mu jël kàddoom yëkkati kàddoom daal di ni maa ngi dénk sécurité Touba Baye Fall yi ba duñ fa tànkooti politique am fi que ku fi def lu mel noonu nañ dagg sa kon lu mel noonu man séntu woon naa ko ni mi ngi ñëw te loolu mooy li nga xam ne nemmeeku nañ ko fa xewna fa loolu nag li muy indi modi di ni nga xamee ni que noonu la Ousmane Sonko doxalee ak ay nit niti salafistam yooyu noonu lañ mas a doxale ci àddina bu ne fu ñu mas a dem kilifa ya nga xam ñoom lañ fa gën a ràññee ci kilifa diine ñoom la ñuy jéem a soofantal ñoom la ñuy jéem a tuutal ñoom la ñuy jéem a dindi seen daraja ñoom la ñuy jéem fexe ba nga xamee ne askan wi dootuñu leen jox wekk wala dootuñu leen jox cër bi ñu leen joxoon ku ne gis na fi ni te kenn du ko weddi amul luñ fi yàqul kilifa yi diine Sénégal ci ñenn ñoo ko def mooy Ousmane Sonko ay nitam te mosu leen a aaye moo taxaw fii di seetaan ay nit di wax xalif général des mourides la nga xam ne jomb nañ cee jaaraat wala xel nangu wut nga ko koy tudd jomb nañ fee wax nañ fi loolu nii xalif général des Tidiane ak amul benn xalif général bu nga xam ne nekk nga fi yor diine te amul lu ñu tegul ci sa der wala lu ñu la wax la nga xam ni bu ko say taalibe ak say jegewaale déggee mu buur leen loolu gis nañ ko fi du benn du dem nañu ba nga xamee ni loolu ñuy wax ci xalif dem na ba xalif général ñaseen def na déclaration jàmm di woote jàmm ci réew mi ni xam naa ne li may wax sax ma ko waxee ba pare dinaa dégg ay saaga waaye du tere ma wax ko ndax jàmm réew mi moom a ñor loolu du lu bees noonu la ñoom ñi doxale fu ñu jaar islamiste yi loolu la ñu doxalee Mali loolu la ñu doxalee Syrie loolu la ñu doxalee Afghanistan noonu la ñu doxalee feneen fa nga xamee ne ña ngi fay sax ay reen wala mujj fa la ñu mujj